xanaa bi di leeral rek baatu istixfaar boo ko doon leeral njëriñ lu am. ndax xam nga jullit ñu bari d'abord baax na tamit ñu bañ ñu bañ di wax safrulaa. waaw waaw. te di astaghfirullah sama yaay noonu lañ ko doon waxee. Hmm? sama yaay de noonu la ko doon waxee. waaw ndax <laughs> gis nga astaghfirullah. doy nañ maali maram waaw. fukki baat ñoo fa nekk. fukki lettre. fukki lettre. waaw fukki yoo xamante ne mooy. mooy junju ay turu yàlla yoo xamante ne benn bu ne rek boo ko jëlee mën nga cee génnee turu yàlla. xam nga TFM bii. Télé Futurs Médias la. waaw. waaye dañ ko abrégé def ko. dañ ko abrégé waaw. astafurlah dañ ko abrégé. ah la ëmb. ndax alif boobu. Mm-hmm. dafay junj dafay junj axat. waaw. xam nga loolu tur la ci turu yàlla yi. waaw axat xaaral ma jël leçon. jàng du wees mm-hmm. dafay sa sataaru. te sa taaru ñëpp bëgg nañ ko mooy sutura. allahu. astaghfirullah da ngay bind rek. waaw fukk araf yooyu. waaw. maanaam boo ñëwee ci alif bi. alif bi moo lay jox allahu. ahad. ahad la lay jox. ahad la lay jox. siin nga. Mhm. sataaru mooy sutura moo tax ñu bëgg ñu bëgg sutura nañuy wirdu astaghfirullah. ah sutura de ko soxla. dafay junj tawba mooy tuub. kon boo waxee astafurlaa di nga am njëggul yàlla. dégg nga. nga mu ngi junju xafaar. faaga mu ngi junju fataahu mooy ibbeeku ibbeeku ci lan ci njàng ci xam-xam ci wërsëg raaga mu ngi junju risque risque kon astaxfirullah ay turu yàlla yu dajaloo la moo tax damay wax ne mbooleem xam-xam yi mbooleem njëriñ yi soo waxee astaghfirullah rek wax nga ko dugg na ci biir te boo demee tamit ci astaghfirullah di nga fekk juróom benn turu yàlla yoo xamante ne boo ko calculé yëpp day ñëw yenu leen moom kese boo ko boolee yëpp dalay jox 1947 jàpp astaghfirullah 1947 47 47 waaw kon di nga jàngee ne kon kon bo waxe astaghfirullah wax nga jang nga tuddu nga tuddu nga fata tuddu nga tur yalla bu wax fatahu tuddu nga tur yalla bu wax kafi tuddu nga tur yalla bu wax risk tuddu nga tur yalla bu wax haniyu tuddu nga tur yalla bu wax ahad tuddu nga tur yalla bu wax allah ci astaghfirullah nga wax ci astaghfirullah kon li julli ñi yalla yombalal na len ni ñuy def ba am njëriñ ci seen bop ak seen seen njabot ak seen ak seen aduna ak seen alakhirah mhm. waye est ce que ñu ngi koy gëssu déedéet. jalaatal ba léegi moo xam ne astafurlah dafa lu mu lëmboo yu bëri. Mm-hmm. jëlal lillaahi. lillaahi waaw. muy 65. Mm-hmm. jëlal Allahu. Mm-hmm. muy 66. jëlal lahu. muy 35 xaw ma. su ma juumut. waaw. nga jël. huwa muy 11. mu jox la 177. boo ko multiplier. par 11. lu mu lay jox. ba léegi moo joxaat la mille neuf cent. quarante sept quarante sept. hasard amu ci. jëlal laa ilaha illallah laa huwa. soo ko jëlee mu jox la cent soixante dix sept boo ko multiplier par huwa tamit onze. Mhm. mu joxaat la mille neuf cent. quarante sept kon astafurlah mu ngi noonu.